topp bi ñuy gis commentaire yooyu waaw sëñ mm. euh, tey jii ñu yeewuwaale wala démb sax euh, mm. benn naqar peut-être laa mën a tuddee naqar la sax euh, ku ñuy wax bay di am Amar nekk doom ci am maar dem mm. si yàlla si ñàkk bakkanam par overdose overdose na buñ ko waxee maanaam danoon drogué wu ba mbir ma daal di koy ëpp mu jot ci ñàkk bakkanam mm-hmm. ñoom seen famille ñu daal nañ tudd ku ci mel ni daam Dame Amar nekk magam sëñ Bada mm-hmm. moom dañ ko impliqué woon ci génnuk àdduna Iba Thiam te kooku elle était morte par euh, overdose mu nekk mbir moo xamante ni nekk na lu doy waar trop sénégalais nag boobu ba tey ñu ngi ciy indi ay wax. waaw xam nga euh, nit. Mhm. ku ne dafa am euh, loo xamante ni yàlla daf la ko mooñaale bind bind bind ko mu nekk ci yow ba pare tamit am fu mu ñu jaarale nañu fii ngeen war a jaar. donc li gën a am solo mooy euh, yàlla bu la mayee njaboot da leen war a yar. Mm-hmm. te yar gi nga leen war a yar da leen war a yar nag ci diine njëkk doog a ñëw boo gisee tubaab yi raw ñu. Mm-hmm. Euh, parce que ñun boo xoolee dañ naan euh, damay dégg saa mbay mu koy wax mu ne tubaab bi dafa ñor. Mm-hmm. mais ñun ñoo ñëw xëm. waaw effectivement te ñun tubaab bi na dañuy roy. Mm-hmm. et pourtant man damay seetlu seetlu bu baax mais ñun royuñu tubaab bi ñun ñun dañoo xam ko en fait parce que. Mm-hmm. tubaab bi ñuy roy. tubaab bi dafay jàng jàng diine. Mm-hmm. ba ci Sénégal fii boo gisee chrétiens yi fi nekk. lan moo tax ñu ne chrétiens yi dañoo yaru. parce que man damay dam sama jàngat ba personnel laa damay gis ne ñoom chaque dimanche dañuy jël seen doom yóbbu leen église yóbbu leen ci jàngu bi ñu xam ko mais fii kan nga fi gis fii muy def lu mel noonu. doo ko gis pour xamal ko diineem tey ji da ngay gis xale chrétien bu ndaw boo ko laajee ci affaire bible affaire da lay réciter waxal la mhm. wayal la xam mais ñun on dirait que dañu am complexe boobu mhm. kon ñun dañu romb tubaab bi ñun dañu xëm mhm. fii boo xoolee ñu naan ay nandite plein plein plein dëgg-dëgg tey ji par exemple dama lay jox le cas de Hizbut Tarqiyyah boo demee ay intellectuel rek nga fay fekk macha allah parce que dañu xam àdduna téye ko xam àdduna dañuy ànd ak seen diine am ko. Mm-hmm. ku mel ni yaay jaaga yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana dafa nekkoon ci showbiz mais teewul dafa xam. dafa jàng diineem xam ko doon ko pratiquer. Mm-hmm. nit mën nga di pratiquer sa diine di pratiquer en même temps sa showbiz parce que tamit yàlla moo defee sax noonu àdduna que yàlla moo ne su ma leen bindoon yéen ñëpp ngeen may jaamu. Mm-hmm. ma rey leen bind fi ñeneen indi fi ñeneen ñoo xam ne dañ may mooy di ma ma kon ma doxal sama àdduna kon yàlla moo moo bëggee nii àdduna bi kon on nga war a boole ñaar yëpp da war nag. di fàttaliku yàlla ba pare te def waa ba tey baax na mais bu dee suñu genre gi nga xamante nii moom da ngay focaliser wu ci pomi rek yow lu luy nay neex rek nay neex rek nay da ngay dem ba da ngay vide mooy dal ñii nga genre yi dañuy vide c'est-à-dire dootuñu am benn option bu dul di ne di drogué wu di dem wala di nekk ci ambiance di dem parce que nekk nekkatuñ ci dara mm-hmm. mais lii nga lii nii tey jii nii lii mm-hmm. moo daloon heure bi daaw ci confinement bi Euh, Biba xaw ma. Iba mhm. mooy gel bi te ñoom ñoo fa nekkoon ci mhm. appartement ba mu faatu. ci lañ ci lañ futtee woon gendarmerie bi gendarmerie bi parce que gendarmerie bi moo leen doon escorté doon leen génne. ñu ko doon fay mu leen doon génne donc ci lañ ko futtee woon. Mhm. donc tey jii ñu toogaat ba année yi encore mu dalaat mu dalaat leen. lii c'est vraiment honte. dafa ñaaw te li sëñ Cheikh al Moxtu bokkoon rek dafa ñëwaat ne maanaam ndaw ñi buñ leen yarul dañuy dem ba ëllëg mag ñi ñooy nekk dof parce que ndaw ñi na ndaw ñi ñooy nekki mag ëllëg mm-hmm. kon moom xëy na ci am na ci ay moroom yu bari yu fi nekk mm-hmm. am nañ xaalis mais éducation bi war seen doom nan deful ba tey jii lii lu mel ni di leen dal. Mhm. ak que xaalis tamit war na mën a tax yow ci loo bëgg a dekk rek nekk tamit parce que àdduna euh, dafa am ñoo xamante ne certes boo amee sa xaalis dëgg la xaalis euh, day tax nga am bonheur day tax nga lépp loo bëgg am nga am ko mais am na loo xamante ne si jaamu yàlla comme ni nga koy waxee tout à l'heure ak baax ci li nga xamante ne mooy daa am doomu aadama mais nit ki génn àdduna lu ko rey overdose dafa nekk mbir moo xamante ni mhm. maa ngi koy ñaanal nag yàlla yërëm ko wax dëgg fa neex yàlla mais dafa dafa nekk mbir moo xamante ne vraiment euh, mi ngi commencé di bari ñoom ci seen famille. waaw moom mhm. mooy li ma la expliqué du question de xaalis wala ñàkk xaalis mais yar sa njaboot dafa am solo. Mhm. nampatal leen ci dara. Mhm. waaw dafa am solo mais njaboot boo ko jëlee nii rek yàq ko nampatoo ko ci dara waajur yi yar nañ ko sonn xale yi génn mhm. boo ko nit boo ko yaree nampatal ko mhm. même bu dee jullit la nga nampatal ko ci diine bu dee chrétien la nga nampatal ko ci diineem diine dafa am solo ci doomu aadama dafa am lu muy def ci doomu aadama boo ko booleeg sa njàng rek da mën a dem donte loon dëng-dëng it après toujours da nga resté nga calculer wu nga toog nga bu da ngay dem rek mais ma mag wala ñoo xam ne maal ma ngay toog ñoo xam ne dalay leer ñii dañu vidde seen dara nekkul seen bopp mm-hmm. xamuñu dara ndeysaan en tout cas nga ne muy noonu ah. laataa moom mm-hmm. comme ni ko Bada waxee mm-hmm. parfois tamit li ñu naan guy dina jur ay dëj waajur yi pare saa di gis ñu nekk ay doomu nit ñu baax seen waajur yi ñu xam leen ci nit ku baax dégg ñu juddoo fu ñu war a juddoo yara fu ñu fu ñu war a yaroo mais dañuy màgg topp lu leen neex topp seen bànneexu bàkkan wala ñu topp ay àndandoo yoo xam ne moom mooy roy dàq. Mhm. kon nag li ñuy wax mooy Sénégal nañu xoolaat jikko yi. Mhm. nañu xoolaat nit ñi seen bopp. bu baax te xam ne ne boo nekkee xale nekk doomu nit ku baax mhm. nga judd fekk sa yaay sa papa ci yenn situation yi nekk ay nit ñu baax dara manqué la xoolal que yenn yi doo ci dégg du mukk doomu baadoo lay sama genre gi. te du mm-hmm. doo mës a dégg sax doomu baadoo lay sama genre gi. Mm-hmm. doomu yi la ñuy la la ñuy ngay dégg ci affaire yi. ñi nga xam ne dañoo am doole ci réew mi. Mm-hmm. dafa nekk cas boo xam ne doo ci mën a sax développer lu baax ndax loo xam ne. dafa ànd ak bakkan bu rot rek dañ leen di ñaanal. yàlla suñu borom yàlla na leen yàlla xaaree àjjana. ba pare di gën a wax tamit xale bi xale yi ak jeunesse bi. nañu xool fu ñuy teg seen seeni tànk. yaay yi sëy nañu ba dee. bàyyi nañu ay kaye fay nañu école yi chère lu ne da ngay gis benn waajur boo xam ne li muy ñàkk ci benn doomam kenn xamul nu mu toll tey xale boobu tey ji ci ki muy gën a sonn tey mooy dëng mooy mel noo xam ne du neex waajuram kon nañu xoolaat comportement yi du xoolaat nit ñi lu ñuy àndal dañuy xoolaat ni ñuy dugg ak di génn dafa mm-hmm. rafetul ñu leen di ñaanal rek yàlla na yàlla suñu borom xaare leen àjjana mm-hmm. et tamit xam nga mm-hmm. liggéeyu ndey tamit dafa am solo de nga am na benn histoire boo xamante ne nii dafa am benn xale bu góor bu toll ci digg ndawam. Mhm. nekkoon ci benn dëkk. gaa yi bëggoon ko loolu surtout rawatina xale yi jigéen yi parce que dafa rafet taaru macha allah euh, benn bis muy muy dawal fasam di def course. Mhm. ba ñëw ba dal ci benn garab def fa accident jaaree fu wàcc fa liggéey. fi mhm. ñu ko waxee yaayam ak papaam ñu ñëw. bi ñëwee ba foofu yaayam bi mu dafa dar dafa jàpp bopp bi yuuxu. ne moom bi koy papaam daan soxla da daan daw. donc benn bis papam soxla ko muy daw ba egsi ci garab googu. foofu la mm. fasal la ko daanu ba papaam mujj egg ci kawam foofu la ambee doom ji. Mm, mm. même doom boobu moo ñëw foofu accident. teew deewu ndaw. Mm-hmm. Mm-hmm. tubaab yi boo xoolee gëmuñu ko daanaka. mais aussi mm-hmm. borom xam-xam yi fii diine ñi xam diine gëmuñu ko ñaare. waaw ah, man maa la wax li borom kéemaan nga de waxal. borom xam-xam yi fii. ñaare gëmuñu deewu ndaw yooyu. comme ni ko tubaab lu mu warul mën a nekk léeg-léeg. Mm-hmm. waxewuma palaasu yàlla nga dama lay wax xam naa li nga wax waaw loolu ñaari loolu la ciy am mm. ba ci deewu accident yi ngay gis déggoo ñu ne maam Cerno Birahim nee na ndaw bu deewee ci accident dafa saraxe boppam mm-hmm. waaw ndax nit fooy dugg fa ne da war a léemu te am na léemu yoo xam ne boo ko léemu insha allah rabbi da nga yéegee ci ndaamar noonu ngay wàccee du la def dara ndax mm-hmm. yonent yàlla lóot ba muy dem ci gaal gi li mu waxoon mi ngi ci alxuraan te loolu ku ko wax képp foo ko wax boo yéegee di nga wàcc te lu ndaw la bismillahi mujraha mursal inna rabbi rahman rahimun foo ko wax boo yéegee da ngay wàcc moom la yonent yàlla loolu waxoon mm-hmm. donc dafa am loo xamante ni ba tey borom xam gars yi gëmuñu ko. tey borom kéemaani. Ah, dëgg la waaw borom kéemaani de. en tout cas ñu ngi koy ñaanal yërmande suñu borom yàlla moom bëri na yërmande ah. vraiment yàlla ko àtte ci yërmandeem. Hmm. loolu lañ koy ñaanal c' est vrai que euh, ni mu génnee àdduna nekk na loo xamante ni kenn du ko fàtte ndax <laughs> bu mu àdduna automatiquement daam am maar bi nga xamante ni daa nekk magam. Hmm. dañoo génne ay archive mu nekk mbir yoo xamante ni c' dire du nekkul loo xam ne day gaaw a fay moo tax hmm. lu bari dañ ko war a maytu nañ maytu bu baax a baax a baax comme ça lépp loo xamante ne rek peut-être euh, dab nañu ci yoon bi mu ñuy fekk ci lu baax mm-hmm. yal na yéex waaye ñu ngi koy ñaanal yërmande suñu borom yàlla bëri na mm-hmm. sutura yàlla na ko yàlla àtte ci yërmandeem te jéggal ko bu baax a baax a baax mm-hmm. beneen génn àdduna euh, sañ Bada mu nekk